Oka le droit à votre service comme ni ñu koy defee tous les lundis en compagnie de nos invités di waxtaanee l' actualité l' actualité mais aussi des cas personnels yoo xam ne yéen koy dund. mais nag tey dañu bëgg ñëwaat un peu sur l' dans le monde du travail parce que nag gis nañ ne récemment. les syndicalistes ak le patronat donc di trouver nañ ay accord pour la hausse des salaires mais nag duñu yem foofu noonu dinañ ñëwaat un peu sur les problèmes yi nga xam ne privé bi actuellement ñu koy dund ak manifestation yi nga xam ne génn nañ ko mais aussi ñu briefer un peu ak notre invité sur les conclusions du dialogue national sur le plan économique vraiment dinañ ñëwaat ci aspect yooyu noonu yëpp tey nag ñu ciy dalal ki nga xam ne mooy Youssoufa Diop nekk directeur exécutif de la CNES maanaam confédération nationale des employeurs du Sénégal tey moom la ñu dalal bëgg waxtaan ak moom si problématique ki nga xam ne énuméré naa ko léegi léegi je pense ne tey dañ ci am waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne mooy Youssoufa ñu ngi lay nuyu di la dalal si émission bi. Euh, maa ngi lay nuyu monsieur Tall di leen accueillir fii si siège CNES di rafetlu seet si bi ngeen ñu seet si tey di yaakaar ne luñ fi dina amal dina amal njëriñ askan bi je pense que dina amal njëriñ askan bu baax a baax a baax Youssoufa comme ni mu ko waxee léegi léegi dañoo am benn benn actualité boo xam ne moo fi nekk c'est-à-dire yéen ak les syndicalistes trouvé ngeen un terrain d'attente sur la hausse des salaires si début du mois bi rek mais nag gis nañ ne avant loolu xawoon na compliqué tuuti def ngeen deux ba trois donc rencontre pour trouver des des terrains d'entente donc lu tax affaire bi xawoon yàgg trop wala revendication yi ñoom metti trop bon mun naa wax ne pourtant bi yoon négociation yi ak euh, suñu naataango yi buy des syndicalistes euh, yàggul noonu euh, c'est vrai que man ci biir patronat yàgg naa si yàgguwuma si mais tamam am na lu ma fekkee te mun naa wax ne am na ay négociation yu gënoon metti yu gënoon gudd tam du temps ay ñoom doyen Madia Diop ak ñoom yooyu nga xam ne c'était des syndicalistes chevronnés yoo xam ne di xale yi di wax daañu woon dara. donc euh, man personnellement j'ai assisté à des négociations yoo xam ne beaucoup plus rudes bi yoon c'est vrai que euh, dem nañ euh, en réunion en négociation ak sous l'égide du ministère du travail. plus précisément la direction générale du travail bi nga xam ne mooy servir un peu de facilitateur pour ñu waxtaanee si donc doléance yi syndicalistes yi tegoon ci table bi. Mm-hmm. Euh, bien sure euh, du doon loo xam ne mun nañ dem rek première réunion rek ñu trouver accord. parce que ñoom dañuy ñëw ak seen ay reva ay revendication ñu tam ñu dem euh, porter mandat bi nga xam ne suñu membres yi maanaam nos entreprise moom la ñu yebal ne ñu vraiment soo soo leen demee ngeen wax lii ak lii fii lañ mun a yem lii lañ mun a def. parce que tam mbirum salaire la. Euh, dafay am ay impact si euh, entreprise yi au niveau de la compétitivité au niveau de la trésorerie et tout donc sooy dem aussi euh, da ngay ànd ak stratégie la négociation stratégie la mhm. man mun naa wax ne vraiment saa a été des négociations vraiment qui se sont passées dans la sérénité mhm. donc vraiment parce que je pense que léegi aussi bien patronat que travailleurs yi atteindre nañ benn degré de maturité ba nga xam ne xam nañ ne entreprise bi ñun ñoo ko bokk. ñun euh, qui représentons le patronat ak ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkal euh, travailleurs yi ouvriers yi xam nañ ne entreprise bi su doxee ñëpp la doxal. donc il faut ku si nekk jàpp si de côté et pour cela il faut tam que les négociations soit soient sereines. mais également soit réaliste nekk xam daal euh, lan moo mën a nekk ak lan moo lan moo mën a. nekk mais boo xoolee écart yi par exemple ci point de départ boo xoolee revendication yi donc parler de 17 pour cent ci li nga xam mooy SMIC SMIC bi 30 pour cent ci salaire de base bi ak 50 000 pour prime ne moom lañu espéré woon dafa am écart bu bëri bëri bëri mais nag est-ce que du yéen yéen a trouver des des manœuvres des pour mën a wàññi exactement la revendication bi nga xam ne syndicaliste ñu ngi ko doon revendiquer pour les travailleurs aussi. bon xam nga maa ngi doon wax léegi ne négociation salariale moom stratégie la. Mhm. Euh, syndicalistes yi suñuy ñëw dañuy indi ay ay ay ay ay pourcentage yu élevé c'est normal. Mhm. si stratégie bi la bokk. technique la voilà technique la da ngay da ngay du ko da ngay dóor fu kawe tout en espérant que euh, après dinañ wàcc. te suñu wàccee dinañ egg foo xam ne boo plus ou war na la mën a arranger kooku vraiment bu ñuy gis pourcentage yu ñu yu ñu tegoon sur la boo bon jaaxaluñu noonu parce que on a l'habitude mhm. on sait que c'est une stratégie de négociation et vraiment ça c'est tout à fait légitime ça se comprend mhm. donc euh, mais ñun tam suñuy dem comme je le disais ñun tam lu ñu mun lañ mun a def pour rappel euh, bu ñu fi mujjee def ay euh, ay augmentation yàggul je pense que c'était début 2020 su ma juumul fin 2019 début 2020 juste avant pandémie Covid bi. Mhm. donc euh, am na ay ay augmentation yi nga xam ne euh, entreprises yi employeurs yi avaient consenti à les faire. Mhm. Euh, si diggante bi gis ngeen di fi xew yëpp. Ouais. On a connu la crise sanitaire avec, avec le Covid. On a connu euh, l'histoire de, de, conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie. Mmh. Une inflation, vraiment, l'explosion des prix du fret, des matières premières, vraiment, entreprise bi lu mu jot a enduré bare na. loolu yëpp il faut que tam ñu bàyyi ci xel. Euh, parce que euh, comme je le disais entreprise bi il faut que tam ñu sàmm ko. par rapport à tous ces chocs exogènes yi nga xam ne. tànn euh, seen kaw am na loo xam ne tam suñ siy jàpp aussi tam il faut ñu xoolaat ko euh, nit tam da def loo mën euh, donc pourcentage yi ñu aboutir je pense que su ma juumul mu suñu egg si pourcentage yi dans le cadre des négociations salariales mmh. donc c'est une première et lu ñu war a rafet rafetlu la c'est à saluer bon dégg naa am ñuy wax naan vraiment bon les montants ça peut être minime minime bon vraiment amul solo noonu mais euh, bu ñu ko xeet bu ko xeeb parce que comme je l'ai dit tantôt euh, am na ay yi nga xam ne surtout ñi nga xam ne ils ont une beaucoup beaucoup d'employés ah su ma jëlee comme le secteur du gardiennage bi nga xam ne ils emploient. beaucoup de personnes day am impact si ñoom jarul xeeb affaire bi benn effort la boo xam ne entreprises yi euh, elles consenti à le faire loolu yëpp parce que nit ñi tam ñu ñëpp Sénégal lañ dëkk ah xam nañ ne àdduna bi dafa metti hmm. Sénégal metti na euh, njëg li lépp yokku na il faut tam euh, nit ñi aussi tam ku nekk jàpp si te pourtant c'est loolu moo tax ñun bu ñu toogee suñu membres yi bu ñuy préparer négociation yi duñu leen ne ñoo ngi dem euh, lii lu ñu travailleurs wax Euh, duñ ko mun a duñ ko mun a satisfaire mais quand même il faudra ngeen lâcher quelque chose et je pense que les gens l'ont très bien compris et loolu moo tax aujourd'hui ñu aboutir à à ces accords là pour préserver un peu la paix sociale au, au niveau des entreprises. boo xoolee li nga xam ne mooy accords yi ngeen trouvé je pense que de manière générale mën nañu jàpp ne c'est satisfaisant mais nag boo jëlee benn ci li nga xam ne mooy accords yi ngeen trouvé c'est-à-dire SMIC bi baax na li nga xam ne mooy salaire de base bi aussi augmentation bi c'est vraiment lu ñu mën a jàpp la mais nag prime de transport bi ak actuellement li ñu gisee environnement transport je pense que dafa ndaw trop waroon ngeen mën a yokk dara vraiment. <laughs> waaw loolu mooy li mu la doon waxtaan rek. Uh-huh. vraiment yaa ngi nekk ci position travailleur. waaw <laughs> euh, bi nga xam ne chaque matin mu ngi jël oto. di liggéey c'est très compliqué les transports en public voilà voilà. Euh, je suis d'accord ah comme ni ma ko waxee insignifiant wala encore faible par rapport au prix du transport en général. Uh-huh. mais comme ni ma la ko waxee entreprise aussi dafa am noo koy gérer on veut bien mettre. ñu ñuy liggéeyal dans de bonnes conditions ñu mun a performant loolu yëpp day impacter par rapport à la productivité de l'entreprise par rapport à sa compétitivité mais également dafa am il faut que tam nga def benn équilibre budgétaire pour entreprise bi aussi tam mun a survivre euh, man euh, du ma d'accord ak yow soo ne affaire bi tuuti na non disons euh, yàlla baax na espérons que d'ici quelque temps d'ici mm-hmm. quelques années mm-hmm. dinañ mun a def encore plus mais lii de jarul xeet de. si sama gis-gis. pour l'instant duñ ko man xam naa. Uh-huh. lan la chef d'entreprise yi di dund. chaque maa ngi toog ñoom di ñoom di jokkoo ak ñoom. Uh-huh. xam naa ne seen vraiment métti na dëgg trop bu ñu ñëwaatee un ci li nga xam ne mooy la protection sociale aussi des des travailleurs parce que tamit je que ne loolu tamit ñu ngi ci indexé aussi lu bëri li nga xam ne mooy les employeurs parce que nag. salaire bi c'est bon augmentation salaire bi baax na mais nag dañuy jàpp ne vraiment de l'autre côté aussi donc la protection sociale aussi du travailleur comme lu mel ni IPRES comme lu mel ni IPM donc yooyu noonu aussi dañuy gis des fois day nekk ay aspects yoo xam ne c'est défaillant par rapport ak ñi nga xam ne mooy les employeurs aussi est-ce que loolu tamit war ñu ci gën a gën a wax aussi d'accord naa ak yow loolu moom vraiment discours la boo xam ne chaque jour duñu koy wax Euh, les chambres chefs d'entreprise yu ñuy liggéeyal vraiment je pense que ki nga xam ne dafay yeewu chaque matin bàyyi njabootam ñëw di liggéey dans ton dans ton entreprise war nga ko aussi tam euh, protéger protéger ko mettre dans de dans de bonnes conditions comme ni nga ko waxee euh, cotisation yi aussi bien au niveau de la caisse de sécurité sociale que de l'IPRES mhm. je pense que loolu employeur bi dafa nekk loo xam ne waru koo café on a vu des cas malheureux tey jii ñoo xam ne. Euh, liggéey nañ ba dem retraite. Mm-hmm. Euh, dem IPRES bon fekk fa loo xam ne vraiment neexu leen. tam peut-être euh, quelque part y a eu des employeurs qui n'ont pas joué le jeu. je pense que li nga wax loolu dëgg la aussi bien caisse pour les allocations familiales mm-hmm. les accidents du travail ñaanu koy ñaanu ko yàlla. Mm-hmm. IPRES pour la retraite mais également IPMI pour vraiment protection maladie. Euh, travailleurs yi loolu vraiment dafa nekk ay affaires yoo xam ne ñun de en tout cas fii au niveau de la CNES discours boobu la ñuy tenir il faut vraiment que employeurs yi fexe ba remplir obligation yooyu parce que loolu mooy tax vraiment euh, travailleur bi nekk dans de bonnes

exogène des fois c'est endogène ay problème yu bari yoo xam ne actuellement yéen a ngi ci nan ngeen dundee les dernières manifestations ak les chocs yi nga xam ne jàpp ngeen ne vraiment impacté na leen bu baax a baax a baax. waaw euh, dernière manifestation yi Sénégal traversé vraiment di ay événements douloureux et malheureux <laughs> vraiment du ñuy déjà au début au départ vraiment di di jaale encore. ñi nga xam ne seen bakkan jot na si rot vraiment di jaale seen famille. Mm-hmm. di massawu aussi euh, ñi nga xam ne ay blessé lañu vraiment loolu ñoo ngi koy naxarlu di ko mettitlu euh, maintenant par rapport euh, même à ce dégâts yi ak impact bu mu am ci entreprise yi je parlerai même de de l'image du Sénégal au niveau de des investisseurs étrangers parce que xam nga ne euh, léegi nit ñi dara su xewee benn dëkk àdduna bi ils sont au courant à la seconde près donc je pense que Sénégal aussi du pays du dëkk bu ndaw Euh, nit ñi duñu koy suivre donc euh, nit ñi ils ont vu ce qui s'est passé et vraiment image boo xam ne euh, rafet na par rapport aux investisseurs étrangers ñi nga xam ne am nañ bëbët ñëw Sénégal pour vraiment investir si soo demee aussi tam euh, dans les places financières ou boursières ou bien voilà donc vraiment euh, le risque pays par rapport au Sénégal euh, sa ça, ça a beaucoup été impacté par rapport a à ces derniers événements risque pays bi soo ko faible dina xaw a gën a yokku par rapport ak ni mu meloon avant euh, loolu su su weesoo effectivement ñun ñëpp gis nañ ne il y a eu des des saccages des de biens publics mais aussi également des bien privés soo ko gënee xool daf une lecture beaucoup plus fine di nga gis ne notamment c'est dans le secteur euh, tertiaire maanaam le commerce et les services hmm. foofu la bi gën a euh, soo gisee par exemple euh, commerce bi déjà dans le secteur informel ñuy jaay ci mbedd bi gis nga ne bi événement yi amee ñoom ñëpp kenn mënul génn ñoom ñëpp a toog donc du ñu mën a liggéey du ñu mën a am xaalis euh, impact bi kenn mënu la ko wax. Euh, soo éga soo xoolee également dans les services au niveau des banques. Euh, les sociétés de transfert d' vraiment lépp a taxawoon te loolu ay ay xaalis bu bare la des milliards de pertes. je ne peux pas trop m'avancer sur les chiffres. Mm-hmm. parce que actuellement ñu ngi nekk di agrégé di ko di. expertiser voilà voilà mais vraiment. Mm-hmm. yàqu-yàqu yi bare na. te fu ñu ko gën a mën a seetloo mooy c'est dans le secteur du commerce et des services. Uh-huh. loolu bien sûr euh, su amee foofu dina impacter aussi si secteur euh, productif bi maanaam l'industrie. Uh-huh. parce que lu ñuy jaay. fa lay jógee koy produire. suñ ko jaayu capacité de production bi automatiquement dafay wàññeeku. Uh-huh. donc euh, vraiment c'est tout une chaîne bi nga xam ne événement malheureux yi laal na ko donc fu mu nekk nii ñoo ngi nekk di saytu. seet euh, pour avoir des chiffres agrégés pour war si mun a communiqué mais en tout cas li ñu mun a waxal mooy ne yàqu-yàqu yi bare na. bare na voilà vraiment weesu na sax fu ñu ko yaakaar malheureusement. weesu na fi ngeen ko fi ko yaakaar du moo tax réew mi actuellement metti tabaski bi metti wala du war loolu loolu loolu waralu ko. waaw mun naam loolu waral na ko. Mm-hmm. parce que nit ñi ñoom si jaaxale ñoom si tiitaange xamuñu comment on dit les lendemains seront faits euh, li nga doon lijjanti. Euh, am na si ay jours yoo xam ne da nga ko perte il faut nga jéem ko rattraper. vraiment affaire bi genre c' est le serpent qui se moor la queue daal. vraiment uh-huh. c' est un effet domino comme on dit. vraiment soo gisee sax dëkk bi. matin rek maa ngi sama benn xarit. am na ay tabaski bi yoon dañu benn xaw a tekk tekkaaral. Mhm. waaw loolu yëpp euh, loo gis rek am na lu tax am na lu ko am na lu ko waral gis gis nañ le conseil national du patronat ñoom def seen point de presse vraiment wax ci li nga xam ne mooy les yi nga xam ne subir nañ ko ak les ak les pertes di laaj à l'état plus de plus de garantie yéen de votre coté gisuñu ngeen def loolu noonu xanaa vous êtes moins impacté que le patronat ou bien. non du loolu comme je t'ai dit euh, ñun euh, pas plus tard que la semaine dernière. Mhm. tenir nañ fii suñu benn réunion de conseil d'administration. Mhm. nga xam ne tous les secteurs de l'économie euh, étaient là représentés à travers seen président de fédération ou de groupement. Mhm. on a donné la parole à chacun euh, ku si ne wax ce secteur euh, affaire bi ban impact négatif. la euh, si constaté. comme je te disais tant ñoo ngi ñoo ngi agrégé ay chiffres parce que ay chiffres yooyu avancé la. mënoo tëb aussi tam di wax noonu ñoo si siy liggéey. te dinañ du ñàkk dinañ communiquer si diir bu gàtt par rapport ak impact bi. li nga xam vraiment. moom moom ngeen di moom ngeen di xaar impact bi lan ngeen ci xaar c'est-à-dire des tamit dañuy dégg comme la fa passée avec le patronat une réparation de la part de l'État wala ñu def leen indemnisation vous aussi vous attendez aussi ça de la part de l'État waaw nit ñaa koy wax euh, effectivement euh, de l'État peut-être mun euh, xaar si moom benn assouplissement bu ndaw par rapport ak entreprise yi nga xam ne vraiment. les dégâts euh, mis à part dégâts yi sax j'étais déjà dans des difficultés. état bi mun na trouver des voies et moyens. bi mm-hmm. nga xam ne dina mun a appuyer soulager un peu entreprise yi. mun na si état bi am na ay leviers yoo xam ne mun na ko actionner. Mm-hmm. je pense à la fiscalité entre autres daal vraiment pour vraiment jàppale mm-hmm. entreprise yi ñi nga xam ne vraiment affaire bi dal na seen kaw bu baax. pour ñu mun a gën a euh, yëkkatiwaat seen bopp quoi. pour gën a yëkkatiwaat seen seen bopp dinañ ñëwaat un peu en arrière c'est-à-dire situation bi est-ce que du impacté ci li nga xam ne moom ngeen conclure avec euh, les syndicats c'est-à-dire la hausse des salaires parce que da ngeen ko da ngeen ko conclure rek affaire yi affaire yi daal ci kaw ci kaw ci kaw Sénégal yi est-ce que certains. employeurs wala certains certaines entreprises est-ce que ñoom it duñu ne ils sont impactés pour différer aussi la hausse des salaires aussi. Ah, loolu loolu moom dégguma ko. xam naa ne si ñu. te gars yi ñeme nañu ko de en moom premier premier juillet 2023 si kàttanu yàlla incha allah. Euh, entrée en vigueur quoi vraiment loolu fee lenn loo xam ne c'est acté ba pare quoi. Mhm. vraiment loolu. góob ma ne dina ci war a mën a euh, dellu si en arrière. kenn waxu ci dara ba ba tey. kenn waxu ci dara vraiment. je pense que te goo mën a dinañ ci wax dara parce que bon c' est vrai que euh, pour être un peu plus sérieux c' est vrai que entreprise yi nañ. Mhm. mais euh, c' est quelque chose boo xam ne c' des engagements qu'on a pris. on a signé. Euh, c'est acté c'est un droit acquis. Mhm. on se doit de mais nag bu ñu xoolee procès verbal bi yéen la gënoon concerné c'est-à-dire le CNES ak le conseil national du patronat cest am na yeneen privé yoo xam ne tamit ils étaient pas partie prenante ci li nga xam ne mooy waxtaan boobu noonu ñoom il faut un pour ñu mën leen ci dugal ñooñu noonu. parce que ñoom it duñu utiliser cette situation aussi pour ne pas payer aussi. non c'est que soo gisee euh, ñun CNES ak CNP ñun rek ñu signé. pour le mm-hmm. compte du patronat. Mm-hmm. c'est que ñun ñoo signé ce qu'on appelle les conventions collectives. convention collective yi CNES ak CNP ñu ñoo ko donc euh, lu ñuy négocier au nom du patronat. ça engage tout le monde. engage tout le monde. tax à chaque fois damay gis ay chefs d'entreprise. Mhm. ñi nga xam ne ñu si benn kuréel. Mhm. aussi bien soit ci ñun soit ci CNP dama leen di wax chaque fois dama leen ngeen affilier fenn. Mhm. parce que lépp lu ñu fay négocier euh, aujourd'hui on parle de hausse des salaires. bërka démb ñoo ngi doon wax affaire bi euh, augmentation de l'âge de la retraite ñi nga xam ne ñoo signé convention collective yi di côté euh, employeur mm-hmm. mooy ñun ak CNP lu ñu signé sa engage tout le monde mm-hmm. c'est pourquoi il est préférable il est souhaitable ku si ne nga am fenn foo bokk comme saa lu ñu fay waxtaanee. dara du si rëcc te di nga mën a wax aussi tam say préoccupation pour ñu mën ko jël am. pour ñu mën ko jël kon boog mu mu leer c'est-à-dire ñëpp ñëpp la ñëpp la ñëpp la concerné donc amul génne na ñi wala génne na ñee def ngeen aussi li nga xam ne mooy seen mooy seen conclusion si li nga xam ne mooy dialogue dialogue nationale bi ci l'aspect économique lan la ñu mën a xaar ci seen i seen conclusion lan moo gën a génn aussi ci seen i conclusion par rapport ak l'aspect économique du pays aussi waaw effectivement euh, participer nañ ci euh, dialogue national bi nga xam ne le président la République moom moo ko woote woon mhm. avec plusieurs commissions euh, ñun moom en tout cas personnellement au nom de mon organisation bokkoon naa ci commission économique et sociale mhm. Euh, on a travaillé durant presque cinq jours une semaine maximum. pour déjà revisiter parce que dialogue bi xam nga entamé woon nañ ko fi déjà en 2019. en 2019 c'est vrai voilà avec euh, le président Famara Ibrahima Sagna. Mhm. et commission bi ma nekkoon euh, c'était toujours le même président président bi di aaj bi aussi tam. moom moo présidé sous commission boobu donc déjà on a revisité li nga xam ne jotoon nañ ko waxtaanee en en 2019 parce que soo xoolee document bi bu baax sax. Mhm. Euh, les problème n'ont pas beaucoup bougé ah. Ouais. à peu près <laughs> les mêmes problématiques qui reviennent. Mhm. Euh, bon mais toujours est-il que di yeesalaat baax na toujours. Euh, soo xoolee problématique yi ñëw te affaire yi. Euh, le problème de la fiscalité xam la voilà le de la protection de l'industrie nationale le problème euh, de l'électricité avec euh, la prime fixe bi nga xam ne sonnoon na industriel yi mhm. voilà peut-être lu si xaw a yokku mooy affaire yi contenu local bi gaz pétrole léegi du ñu ne contenu local bi bu ñu ko yemale rek si ñaari secteurs yooyu nañ ko étendre à d'autres secteurs je pense mhm. notamment au secteur du numérique, entre autres. Mhm. Voilà, vraiment, c'est pour, te dire, vous dire que mhm. euh, les questions euh, qui, qui, ont été débattues, en gros, avaient, été, avaient euh, déjà fait l'objet de travaux. Donc on les a remis un peu au goût du jour, compte tenu peut-être des quelques petits changements qu'il y a eu entre-temps. Mhm. Mais toujours est-il que nous, Grafetgo, Euh, que recommandation yu ñu wax euh, teg ko ci table président de la république yaakaar naa ne euh, am na ci une oreille attentive. Mm-hmm. parce que dégg naa ko keroog samedi ci séance restitution bi. buy mm-hmm. wax ne dina recevoir très bientôt le patronat le secteur privé par rapport à la validation. de la stratégie nationale de développement du secteur privé. Mm-hmm. benn document boo xam ne na ñu solo trop. ça fait deux ans ñu ngi si liggéey euh, vraiment franchir étape yëpp léegi euh, validation bi moo des au plus haut niveau à, à travers monsieur le président de la république te euh, keroog def na annonce bi ne dina valider stratégie boobu parce que si biir stratégie boobu am na si ay jéego yoo xam ne suñu ko suñu ko defee yaakaar naa ne secteur privé dina mun a jëm si kanam. pas plus tard que ce matin. Mhm. dem nañ cérémonie de lancement CPI bi. le conseil présidentiel de l' investissement bi nga xam ne euh, dafay am benn format bu bees bu ñuy bugg bu ñuy bugg def sous l'égide de l'APIX avec de l' administration et des organisations du secteur privé mmh. te CPI boobu nekk na benn cadre de dialogue public privé bi nga xam ne amoon na avant bi yoon bi ñu koy jéem a reformaté par rapport au nouvelles réalités mmh. mais c'est un cadre de dialogue boo xam ne jot nañ ci am ay ay ay résultats yu satisfaisants pour le secteur privé et vraiment euh, loolu soo xoolee stratégie bi stratégie de développement du secteur privé waxoon nañ ne. Mhm. le cadre de dialogue public privé. dafa nekk loo xam ne duñ ko war a institutionnaliser formaliser ko et je pense que aujourd'hui avec euh, le lancement du nouveau format CPI nekk na déjà benn avancée majeure donc loo xam ne ñoo ngi koy rafetlu. ñu ngi koy rafetlu kon boog mën nañ jàpp ne conclusion yi xam ne joxe ngeen ko bu amee applica application donc Sénégal dina am beneen xar xar kanam ci wàllum économie ak ci wàllum social. waaw waaw dina am dina am xar kanam bu baax xam nga Sénégal comme je dis. Mhm. Euh, réforme yi euh, Sénégal mooy dëkk boo xam ne loo mun a xalaat rek nit ñi. liggéey nañ ci ba pare. parce que am nañ une expertise avérée dans tous les domaines. maintenant nag le problème qu'on a c'est c'est la mise en application. Ouais. Ah. les réformes mais léegi appliquer ko loolu mooy problème parce que y toujours des réticences euh, réforme yoo xam ne parfois day laal plusieurs administrations bon chaque administration euh, elle est un peu jalouse de ses prérogatives voilà donc sa ça ça dafay indi ay facteurs de blocage. Mm -hmm. mais aujourd'hui euh, am nañ si yaakaar parce que comme Sénégal euh, suñu architecture institutionnelle. léegi am nañ un premier ministre blocage yi nga xam ne daan nañ ko gis au niveau de certaines administrations je pense que. Maintenant. le premier ministre moom dina mun def arbitrage yi pour trancher ñu a avancer. pour pour trancher ñu xel xel am yaakaar daal. Mm-hmm. mais que on fera des pas en avant quoi incha allah. ci wàllum aspect économique et social je pense que ni temps bi ñu impartiroon jeex na benn dernière question rek la lay laa lay lancer c'est-à-dire actuellement ak ñi nga xam ne moom la ñu gisee la tension économique la tension politique ak la tension sociale fii ci fii ci Sénégal. Sénégal ban rôle le privé bi war a war a jouer ci wàllum aspect boobu pour vraiment participer véritablement ci apaisement société sénégalaise actuellement. waaw bon je pense que vous avez dû suivre l'actualité gis mhm. ngeen ne patronat bi jëloon na fi ay initiative bu yàggul pour un peu ramener la paix. Euh, bien sûr on est allé voir le président de la République auparavant dama nañ gis euh, waa F24. Mhm. pour seet un peu comment euh, rapprocher les positions voilà vraiment au moins bu am benn temps de répit mm-hmm. que l'état que nit ñi mën a toog autour d'une table mën a waxtaan bon euh, ñoo ngi si ba léegi ce n'est pas facile je l'avoue mm-hmm. parce que les positions sont quand même assez tendues assez braquées mais euh, am na ay jéego ñu siy dox am na loo xam ne mën nañ ko wax si suuf am na loo xam ne si kaw am na loo xam ne si suuf lañ koy dox mm-hmm. mais patronat bi toogul rek vraiment je pense que yéen ñëpp gis ngeen ko à travers les pèlerins di dox di dox jàmm si ñaare pàcc yi parce que loolu yëpp intérêt Sénégal la je pense que Sénégal su loolu ñoom ci loolu mu ngi nag dañuy jàpp ne vraiment c'est un peu c'est un peu léger de la part du patronat parce que vraiment am ngeen poids économique boo xam ne je pense que bu ngeen ko tegee sur la balance war nañ leen mën a déglu parce que boo xoolee exactement Sénégal ak nombre de personnes yi nga xam ne yéen a ngi koy jël ci wàllum wàllum employé donc boo xam bu ngeen waxee soit avec le pouvoir wala avec l'opposition dina am lu mu wàññi donc monsieur Youssoufa Diop donc am leen plus de poigne par rapport ak la situation donc je pense que ci loolu la ñuy poigne bi ngay wax je pense que ñun effectivement am nañ poids en mmh. termes d'emploi en ouais. de recettes yi ñuy au niveau de l'État ouais, surtout yëpp yëpp mhm. xam nañ ko mhm. mais euh, c'est à l'État également de moom le dernier mot lui revient. Mm-hmm. donc je pense mënuñu wax ne ñun amuñu poids. moyen de moyen de pression suñu bonne volonté la ñu mm-hmm. je pense qu'on l'a manifesté dox nañ ko wax nañ ko léegi nag. c'est à l'État parce que itam ñoom ñoo yor euh, réew mi ñoo yor kaaraange réew bi ñoo yor euh, le pouvoir. Mm-hmm. c'est à eux de de de le reste mais ñun en tout cas li ñu waroon def def nañ ko. voilà vraiment donc mënuma wax ne vraiment ñàkk nañ poids merci beaucoup merci beaucoup Youssoupha Diop. directeur exécutif confédération nationale des employeurs du Sénégal moom lañu la dalaloon tey ñu bàyyi la jox la dernier moo bi nga def sa salutation ñu doog clôturer. vraiment maa ngi leen di remercier encore une fois. di euh, remercier également euh, téléspectateurs yu 7TV yi. Mm-hmm. télé boo xam ne dinaa koy suivre. seen mm-hmm. émission lu am solo la vraiment donc euh, di souhaiter bonne fête de tabaski à ah, tout le peuple merci beaucoup waaw mi ngi noonu kon bokk ñu ngi leen di remercier ñu ngi woon tey ak ki nga xam ne mooy Youssouf Diop nekk directeur exécutif de la confédération nationale des employeurs du Sénégal pour waxtaanee aspect yi nga xam ne dégg ngeen ko cest la hausse des salaires dans le privé ñëwaat nañ un peu ci problématique bi nga xam ne privé yi ñu koy dund actuellement mais aussi terminé nañ avec dialogue économique ak social bi nga xam ne ñoom def nañ des recommandations des conclusions li nga xam ne mooy waxtaan boobu la président de la république sooke woon donc ñu ngi koy jaajafal bu baax a baax jaajëfal équipe technique bi nga xam ne moom lañu ca àndaloon ci li nga xam ne mooy liggéey bi Issa Pouy Amadou Kébé ci réalisation bi Khady Sarr ci montage bi merci beaucoup ñu ngi leen jaajëfal jox dig daje incha allah lundi prochain même heure même chaîne merci beaucoup votre chaîne vous suit